si syndicats sont venus à la télé Dikas kaas naan ay eh, buñ ko fi def ça permet de sanctionner ku def bêtise bu ndaw ñu jël si yow deux points bu si si jeexee dootoo dawalati il faut faire ça grand. chauffeur yi moom daw ndànk dox ndànk rey doomu jaamur rek lañ fi nekkee c'est de l'indiscipline caractérisée waaw ils sont indisciplinés waaw. waaw foo dem nag am nañu baax am nañu bon waaw xool bi eh, amuñu yërmande ku ne yaa ngi embouteillage boo bëggee wàccee bala ngay àgg sa kër ay 7 heures ay 9 heures ku ne sa wërsëg dong ngay jël liggéey pour lan pour askan wi la nit ki quelle que soit la situation nit ki boo yoree camion nga xam ne carrément que ne circulation laa nekk du man kese maa nekk am na ñeneen ñuy ñuy ñuy dox ci tali bi ñu yore engin ñu yor oto yu ndaw mais boo nee maa yore oto bu mag maa ëpp doole xaar ma def lu ma neex mais dawal vitesse excessive mais géey rek ngay def ko yu mel ni tey jël doomu aadama ñaar xaw ma ñett yi àdduna Hey, wara dem tago sen wajuri Tago s'en. jabot sen ah seen ni la maa ngi xëy ñit annoncer melni dafa rafetul dafa rafetul le comportement des les hommes de tenue ne peuvent pas être partout on a un état faible il faut oser le dire on a un état faible parce que lépp c'est politique et ça c'est pas normal il faut que un moment donné ñu jël une responsabilité il faut qu'ils prennent leur responsabilité li dafa ñaaw li li ma dal li ko dal mën na ma dal la dal grand tu descends ta voiture pour parler au gars qui a touché ton rétroviseur, tu dans Ça fait très mal au cœur, grand. Il n'y a pas de human mistake here. Il n'y a pas de human mistake. Fille, def lu la mo am ci Il faut que l'État réagisse.